gis nañ bu baax ñi ñu jàpp fan yi Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène ak ñeneen ak ñeneen mais lenn am na lenn am na lenn am na mooy réew mi nag léegi tey rek nag ñu nekk soit ci xaw ma théocratie laa ko tuddee xaw ma autocratie xaw ma mais bu ñu nee démocratie la ñu nekk il faut respecter la liberté d'expression d'autant plus que également elle a des limites. Quand il ne faut pas branche, euh, franchir la barrière. Il ne faut pas draper. C'est-à-dire ne pas faire de dérapage. Maintenant, aussi, du tax tamit tartamite, <laughs> Rémi Kendouach, président Macky Sall, c'est le chef de l'État. Allah Kouli Al nga bëgg ko nga bañ ko moom la askin bi woolu fal ko mooy président de tous les sénégalais nga ànd ak moom nga ñàkk ànd ak moom nga bëgg ko nga bañ ko loolu on n'en disconvient pas te waxtu fi yàlla wala jëlee fii jë jóge maintenant lu tax tamit nag nit ñi am seen cëggulu xol wala am sañ-sañu génne leen naqari wax ko nga ne doo ko fi waxee ana lu yooni fekk nit këram guddi dajji buntam jël ko anal lu fekk nit fa muy liggéey nga loqati ko jël ko ana lu yoonu ku bëgg a taxaw wax ne lii dama ko lettre d'information laa yóbbu sax yëglu ne dama dañu bëgg nangam nga jàpp waa ñun arrestation arrestation arrestation arrestation ba kañ arrestation ba kañ il est temps loolu jeex aussi ci Sénégal ñu respecte nit ñi weg leen wala ñu jëlee fi démocratie démocratie bu dee dañ koy woote démocratie chacun est libre de dire ses pensées d'exprimer de s'exprimer mais bu dee loolu amul kay nekkatuñ ci démocratie il faut laisser les gens exprimer librement aux États-Unis mais les gens dañuy dem ba buntu Maison Blanche yëkkati photo Donald Trump waaye kii y a problème te ñoom la ñuy imiter ci démocratie maintenant bu ñu bëggee nag réew mi ne wala wax dëgg yàlla réew mi ne nag bu kenn genn vingt et bu kenn marche bu kenn dox. bu kenn wax ah, man de nee naa dama koy wax ci jamono li bi li xadde fi defoon nga xamante ni réew ma doo fay courant doo fay ndox jàng bi naka noonu pharmacie da ngay dem jël garab hôpital dangay ngay faju doo fay toutes les conditions de vie sont réunies ah loo wax waaye kay bu la neex nga def xadde fi ma doon loolu nit àdduna bi li nit ñi sonn yëpp loolu la di pour ki ñu xeex sax ci politique pour jiite réew mi pour loolu la moom sonkoo keneen keneen waaw su président ba ñu garanti lee loolu kay baax na ba ñu fexee ba courant bi kenn du am problème ndox mi jot yem nit ñi amum xëy njàng mi jaar yoon hôpital yi jaar yoon ay président bu la neexee sax bu kenn sëqat waaye dara fi jagut fii booy xool Sénégalais yi bëri les gens souffrent vraiment les gens souffrent nit ñi dañuy ko war a jaase xëy togg añ tibb ci reer ñii jàng bi amuñ am problème seen njàng teel yàqu parce que gis nañ ñu bëri ay fin politique la ñu mujj utiliser seen jàng dañuy mujj dem boote ci kenn jàppal ko tànk pour mën a réussir ñii hôpital boo fa demee boo mujjee sax yaay fajo ji mais boo mujjee yow mi faju ji wala ki ànd ak ki fajo ji day mujj feebaraale ndax hôpital ba ñuy fajo moo leen gën a feebar nga bëgg ni réew mi kenn du wax da nga naan kay wax leen waaye li ngeen di wax